tëdd fi nga xam ni moo di ca Medinatul Munawwara tey ndek bu ngeen gisatee jotaay wi xam ni ñu ngi seen émission bu mag bi nga xam ni moo di ëttu mag ñi tabarfakal la ma fekk goo ceeg nit koo xam ni nit ko am pas-pas la am bëgg-bëgg am gëm-gëm ba tax na dafa jël boppam duppee li nga xam ni moo di alquran balaa may ñëw ci ñoom rek dañuy ñëw ci kër kilifa diine yi ndax ñoo fi toogal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko waxee ne xel du dem ci ki nga xam ni moo di Serigne Mouhamadul Munir alxalif njegéen maam asapatek dem bay Yoro Omar ak ñay ma ca Saloum jol Fatim Tooba astama ca Beleer Medun borom Kasas di ko ñaanal wér yàlla sàmm ko bàyyi ko fi ba ci kanama kanama kanam waaye dem ba dëkkub Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul bàyyi basak baarama mi dan nag Cheikh góor ga debong gabong jaarama yombe jaara ndimbal wërig fekk fa sëriñ Muntaxa Basiru ibnu sëriñ Basiru ibnu Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ba tax na noonu la ñuy jaare rek dem Tiwaawan dëkkum maam Seydil Xaaji Malik ba si di fagay dem ba ma ca jawaar ba karek dara maan arab loo kumba cam mañ pendak pate pendak bëgguma pendak xar yàlla bopp coor sëriñ Babacar si Mansour ibnu sëriñ Mansour si bal xaw mi ibnu maam Seydil Xaaji Malik ay ca ñu sofu noonu rek dem suñu kër maam ahlul kunti yu kunta sidil maxtaar cheikh bu sidil maxtaar ibnu cheikh sidil maxtaar ibnu cheikh bu mouhamad kunta ibnu cheikh albun am xalifatul am li tariqatul qadriyatil beka'iyatil bun amiya di ko yàlla sàmm ko bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam ci barke Seydina Muhammad waaye ndek fa ñuy tëje mooy sunu kër maam isa jëy fatim penda lak sukaabi ngoone jëy dammel dëcce fa njoogu dammel ma xuraja dammel samba yaaya val na ma koy waxee rek l'homme qui a Bamba Khadim Rasoul bu ñu ko waxee ne xel lu dem ci kudul maam Cheikh Ibrahima Fall ah xalif bi di sëriñ Modou Menda Fall ñu ngi koy siyaare waaye sëriñ Assane Fall moom tamit a a ki nga xam ni moom laa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 رب اسر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا ني نغي لاي فاي <laughs> يا جدال لو نجوكل غنا <laughs> آه، با ني نيو با ني لا نيو دا نان جيرجيف سيرن توبا جيرجيف سيرن توبا جيرجيف سيرن توبا جارا مام شيخ ابراهيم فال لامب شيخ سيف حسن فال جيرجيف ñu ngi lay fay lay ndeysaan mu ngi noonu nuyoo yi am na solo tabaar fa kàlla macha allah euh, dañuy dugg ci waxtaan wi macha allah ñu bëggoon xam kan mooy Fall Alquraan ak lu wundu Fall Alquraan waaw lay loolu de boo ñu ko laajee dinañ ci sawar pour wax ci. Mm-hmm. parce que Fall Alquraan bi ko ñun suñu lépp fii lañ ko defee ci koñ bi. Mm-hmm. suñu daara mi ngi fii ci kër Cheikh. Mm-hmm. Oustaz Abdoul Xaadir Ngom surtout Mame Rawaxaan Ngom moo ñu jàng Alquraan. Ah, da naka biñ ñukoy jangal bu ñi wacce ñuy ken kenn mësu ñu ci wowe fa alquran mm-hmm. yalla xam na mm-hmm. te yit lolu grâce bu amé loo senté sama wayjur bi nga xamanteni Mo jappone sama loxof ndeysat yobuma ci daara ji pour ma jang alquran mm-hmm. wa kon nak bobu lolu dama la dara xew mom la ci santé muy Serigne Fallou Fall parce que man dama teel ñak sama sama wayjur bu ndeysat mais joy mo joy mo wayjur bu gor ndax mom waa ah, bi jàng jotee yóbbu na ma ma jàngi. waaw mm-hmm. ah, maa ngi wàcc alxuraan 2011. 2011 waaw 2011 laa wàcc juillet 2011 laa wàcc alxuraan. waaw mm-hmm. ah. mosuma mm-hmm. jàng leneen lu dul alxuraan. ndeysaan mosuma jàng leneen lu dul alxuraan. tey jii lu ma am lu ma am alxuraan moom moo ma ko may. ndeysaan lu ma am moo ko may. ndeysaan man tur bi sax man li indi sax man daanaka mën naa ni lépp Chérif Assane la. waaw surtout foofu sama sama wasila. waaw parce que man avant may jébbalu ci moom. dama ko sopon ba pare bëgg ko ça avant makoy jébal sama loxo pour di pour di jébalu ci mom dama ko kuma nawon la mhm. ta bi may ñew ma ngi fekk ñukay wax fafa alquran mom mom ñu di woy fa magis ma gis ni ma gis ni des fois mhm. ma gis ni des fois nit mhm. wa ma ma gis ni des fois nit da ngay roy da ngay roy ko xamanteni ni artiste la comme way kata yoy ma ne pourquoi man ma ni serif Sërif mo sama serigne pourquoi ma roy ko ci ma roy ko ci alquran di alquran di appliquer lolu mu jall ndeysaan deg do deg len lolu fa alquran hmm kon man naa ni bu bu bu sama wajur jalle oustaz bima jang alquran jall hmm mang koy sante mom di geureum diko wax ni bisu daram ji mu gën dem ba barki dem rek samedi. hmm diko ñaanal sama borom mu yag ko tewé ci barke alquran amin ah parce que mom lepp mom la. ndeysaan biñu def bande annonce bi mi ngi ma yow ku mus nga ma ne ko ah tax wax oustaz man man may jàng te neewuma oustaz Abdou khadim alquran ni ma nag sa tur bi tur bu ma neex la parce que man mën naa ni sama ndam la man moom mu ne ma moom ndamam la mhm. parce que bu ma jàngal alxuraan dégg bañ ne woy fa alxuraan moom nee ne loolu de te di ko gërëm laay daal ci tënk mhm. mën naa ni fa alxuraan ji ci roy sama sëriñ laa ko jëlee ah, ba tur boobu law Ah. daanaka dëkk bi léegi doo dégg ku maanaam li ñu may woo sama tur Sabaytu Fall alxuraan rek ngay dégg waaw jaaxal na ma parce que sa tur tey jii mhm. man mi buñ euh, buñ ma ko laajoon du ma ko xam Fall alxuraan rek laa ci xam mhm. Mhm. alxuraan Fall alxuraan ji daal ci sama sëriñ laa ko laa sama sëriñ laa ko jëlee tamit da jàpp naa ne nduru ndurul sa sëriñ ayu waaw parce que lu baax lay def man lu baax laa bëgg te damaa judd fekk samay wayjur baax ma judd ci kër goo xamante ni daanaka damaa fekk samay wayjur yëpp baax ba ci sama maam mhm. kon nag man bu ma jaadee rek da damay damay tooñ waaw ah, moo tax ma appliqué loolu te it sant naa ci sama borom mhm. sant naa ci sama borom bu baax a baax a baax man gëm naa ne alxuraan mi ngi may teral Mm-hmm. billaahi may teral rawan barke alxuraan mm-hmm. parce que ñëw ma sama benn morom mm-hmm. tey jii lu ma bëgg a faj dama koy faj ci ndax lan alxuraan kon alxuraan mi mi la jógee parce que dama ko troy ci bëgg baax ba jël ci ba jël ci alxuraanam ci sama alxuraan tuddee sama bopp fa fa alxuraan mi ngi noonu macha allah am na solo bu baax a baax a baax ndax alxuraan moo njëkk te mooy mujj daanaka booy gane si àdduna bu ñuy noddu lépp day dugg ci biir alquran buñ lay ci tamit alquran moom la ñuy mujjee euh, moom lañ lay euh, tënkaale ci sa biir bàmmeel mu doon lu am solo te gis nga ñaar ñi dañuy am fierte ci ñoom bu ñu gisee ku ñu jàngal tey muy tari muy médecin ba moom bu gisee koo xam ni feebaroon na mu faj ko ba mu wér mu gis ko mu nekk ci activité am moom day am contentement ci lan Mum, biko yalla tege tegee ñew na yalla dimbali ko mom mhm. mu teggil ka nattu bi ki nga xamni dig mo la jangal nga dem bay tari tamit bu la gisee day am mbégte ak contentement ci lan parce que bi ngay ñew yalla def na ni xottu rek nga won bi nga ñewé def na la ba nga melni ni go bu ñu sol mhm. bu fess del mhm, di diko ziar bu baax muy euh, abdou khadir ngom macha allah ñu gis ko fi ci diwanu kër elage mu di ci jàngale alquran kon dég tay bu deme ba gis nongal nga xamni dan na jangal alquran ñu di ko alquran xaqiqatan mbégte moomu yaakaar naa ne romb na sax ci wax ji nga xam ni sax moom la la ko wax te ñu gis euh, tolluwaayu jamono ci ndaw ñi sànq dugg nga ko euh, dugg nga ci say biiri kaddu euh, nga waroon wala nga mënoon def leneen nekk ci leneen defoo ko lépp ngir jël li nga xam ni moo di yoonu lislaam nekk ci di organiser ay cant di organiser ay ay jang ba nit ñi di ci gis sa bop initiative bobu fan nga ko jëlé waaw laay initiative bobu de dama ci sant suñu borom parce que suma jumul jumul wéru koor la mhm. mak alhaji mafal job mi nga xamanteni mom lay sargal ci bis bi parce que mom it mang koy nuyu mhm. parce que danaka biñu commencé première édition ba 3e édition bi ma wax yow ni c'est la nuyu ci ben yoon c'est te yit mu ngi ci jox ay xalaat yo xamanteni ñu rafet la mhm. barkal qur'an dama tok fi ci garab gi fi di jang alquran ci ci ben wéru koor toog ba si yàgg mel ni mën naa ni sax maanaam mën naa ni si si ku mel mën naa ni si si sébro dafa dafa ma feeñ parce que ma jeg ba si yàgg sax kan yar ci moom barkal xuraan man ni ma fal de man damaa war a def ay ay cant moo tax ma ne ko man daal dama damaa yëg fi ma toog nii dama fay dama fay yëg Cheikh Ibra mu ne comme ko am nga wàcc la nañu dem ci moom ñu waxtaan ci ak moom bu ñu dikkee ci Serif maa ngi moom ñoo àndoon jour boobu ak Baye Ndiaye maa ngi koy nuyu moom it ñoo bokk fii di toog fii di jaay café fii bi mhm. ñu dikkee waxtaan ci ak moom mu ni ma yow ci nga bokk boo cantee war ngaa cant boo cantul te war ngaa cant jox naa la ci ndigal defal mhm. cant gi mën naa ne foofu lu jóge mais li jiitu loolu sama woy jur bu góor Serigne Mansour Fall maa ngi koy nuyu daanaka moom sama lépp la moom sama féete la mhm. muy borom xam-xam bu mag dama avant avant lii di lii di xew daf ma woo ma ñëw mu ni ma dama gént dama gént ñu mbooloo bu séddale ay ñam moom wax ma boobu cant gi xewagul dara xew dara xewagul bi ma waxee loolu ma ne ko ah ma ne ko ah, ma waaw mbooloo mu bëri fi la ngay séddale ay ñam ni ma dangeen dinañ dem ba day dëgg fu kawe ni ma defal nii ak nii ak ci ci boobu mën naan ci biir semaine boobu. ci mhm. ci la ma loolu li ma lay wax nii. arrivé mhm. ci la ñëwee ma ni kon gi ce que gisoon moo tax ma wax ma loolu. ndeysaan barke alxuraan. Mhm. maa koy nuyu moom it joué na ci. parce que tamit bi ñu ci demee ci sëriñ bi waxtaan ci ak moom ba jox ñu ci ndigal moom it dikkan ci moom waxaat ci ak moom mun ma ko li ma doon wax moo nekk nii. lii loo ko mën a téye téye ko. mën naa ne daal cant gi ci loolu la jugee. ndeysaan waaw. kon bu ma lay déggee cant gi ci foofu la safoo mhm. mu doon lu am solo parce que ak njaam nit dafa war a sant mhm. sant ku mu mën a doon parce que yàlla tey jii bu ñu bindee ñun ay nit lañ mais am nañ benn transaction boo xam ne benn yoon boo xam ne yàlla daf ñu koy jaarale ndax euh, Sénégal ñëpp xam nañ ni sunu mag ñi ñëpp a baax amnañ ay guide religieux yo xamni tay ji kep ko xamni bëgg nga lu baax te buñu waxé nit ñu déggal ñu bo démé ba ci ñom dinañ la tek ci yoon machallah tay dafa melni yaangi jup li nga xamni modi 3e édition chante mam Cheikh Ibrahima Fall sank waxna ko moy lom qui a épaulé Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul te ku nekk xamna mam Cheikh Ibrahima Fall na mu bëggé won alcorane mam Cheikh Ibrahima Fall na mu fonké won alcorane maam Cheikh Ibrahima Fall na mu wege woon li nga xam ni moo di al alquran tey Fall alquran fas yéene cant maam Cheikh Ibrahima Fall di delloowaat alquran maam Cheikh Ibrahima Fall loolu nan nga koy yégee loolu yëg-yëg gu foor laa ci am mhm. yëg-yëg gu foor foor foor laa ci am barke alquran mhm. parce que tamit man it Cheikh Ibra amoo ci moom sago ndeysaan mën naa ni ñaar yi dama nangu kenn di ma maa la ko gën a bëgg muy muy Cheikh Ibra alxuraan ndeysaan man nga mën nañu xëccoo li ma bàyyi ko yow mais ñaar yoon mu nga ni kenn gën ko bëgg kon nag yëg-yëg gu foor laa ciy am parce que damaa dem ba nga xamante ni man mënatuma téye cofeel gi ma am ci hmm. ma génn ko ndeysaan tey li may rëccu man yéex doon mooy yéex doon Baay Faal man rëccu naa ko ndeysaan d'accord parce que gis naa ci sama bopp hmm. barke alxuraan gis naa ci sama bopp tey jii mën naa ni lu ma lu lu bëri li li ma am gannaaw Baay Faal gi ma doon ak bëgg alxuraan ji ma doon moo may li ma li ma am Cheikh Ibra daal dama amul ci moom sago dem ba nga xamante ni mootuma koo tee sama xol ma partagé ko ni pourquoi pas ñu jant Cheikh Ibra parce que mootuma koo tee sama xol ma am cofeel ci moom trop barke alxuraan macha amna solo bu baax dem ba xam ni cofeel gi nga am mënatoo ko tollu way la waref la ga génne ko mbokk yi di leen ba legui ni yene ngi sen émission ëttu mak ñi ah tabarfakal la tey ma dalal ki nga xam ni moo fal Alquran muy wajjal bés bu am solo tabarfakal la mu don le premier juillet fi nga xam ni moo ci diwanu keur Cheikh muy sant mam Cheikh Ibrahima fal mu fas yéene ànd ak ñu bari ñu am solo tabarfakal la xam bu ñu doxale ba ci bir dinañ gëna yaatal programme bi ñu xam bés bi nan lay demee ak fan lay amee ak ñi nga xam ni tey ñoo koy taxawu première édition jàll na deuxième bi jàll na troisième bi diiraan bi nga njëkkee def hmm. ba deuxième bi troisième bi dafa mel ni am nag yokkute goo xam ni kawe na sa njort hmm, parce que loolu lépp dañ koy delluwaat dañ koy delluwaat sëriñ bi rek hmm. parce que bi ñu njëkkee ñëw def dañu dañu dañ ma defal di dina neex ma def gis ni neex na deuxième édition bi ñu demee dikka joxañ ci ndigal mu ma bu daaw ba mooy dàq b ren bi Mm-hmm. dina gën a neex loolu it ñu gisaat ci lu kawe suñu njot bii bi ñu koy joxaat ndigal mun ñu yi fi jaaroon yëpp bi koy dàq dina neex dina déedéet dina bari xéewal mm-hmm. barke alxuraan kon nag suñu xel daf ciy dal amuñu si benn pression amuñu si benn pression parce que métti na it budget yi mm, budget yi métti na mm-hmm. barke alxuraan bi su ma ne leen méttiwul damay wax lu ma neex dëgg la mais man du tiituma ci parce que moom li ma wax rek moo tax du ma ci tiit tey jii man naa ni lépp moom la parce que mom bu ñu ñaanal ñaanalee rek suñu wajur suñu wajur ñaanal ñu pour ñu pour ñu dugg dara so song song ko rek daan ko day day yomb ci ñun ko lool dañ ci sante dañ ci sante suñu borom daan ni troisième édition bi barka alquran ni o ma ci sik sak ni moy dàq fi from parce que mom lool la ma wax te li mu mos wax te teg nag sama bët mako sik sak mhm. wa kon nak 3 troisième édition bi kep ku ci ñew di nga xam ni mo dàq fi jotoon a jaar mhm. Mhm. ndeysaan mu ngi noonu troisième édition bi képp ku ci ñëw di nga xam ni moo dàq yi fi jàll te gis nga garab chaque jour dañuy ñaan yàlla mu am ak lawte bu ñu ko waxee mooy ak yokkute cant gi nekk ni la mel gis nga yàlla dañuy sant leen ma dolli leen ku santul ku nekk duñ la dolli te nit xam nga kan moo gën a mën a neex a dimbali nit ku ñu fekk ci yoon moom la ñuy gunge nit koo xam ni da ngaa toog di xaar ku la yóbbaale yaakaar naa ni foofu nga toog neewuma la di nga fa gaaw a jug waaye jug fa du god euh, du doon euh, du doon lu gaaw tabar fa kàlla macha allah moom rek mu ngi ci yoon te ndaw la sànq na ko métti préparation yi defar carte yi jug dem ci nit ñi lépp lépp lépp am nga ci euh, ñoo xam ni tey jii daanaka mën naa ni staff wala ñi nga xam ni ay andi jàmm lañu ak i xal euh, aki xarit yoo xam ni ñu ngi la ciy soutenir di la ci jàppale. waaw ca ci laay man wéetuma ci.

ci walu jigen ni ay Baye Ndiaye ak Maa Diop Xaari Ndiaye ba ci suñu jëwriñu daara bi nga ba ci suñu jëwriñu uh, suñu jëwriñu daara serif Assane bi nga xamanteni moy mom la serif tek ci bopp bi mhm. moom it ñu mhm. ci and ak mom kon man na ni wëtu ñu ci parce que ben ben nit rek mu a doxal mhm. ay Maa Diop ak ñepp ñu ci japp ñu ci wara jappé parce que man kese suma ko doxalee rek du soti parce que da nga japp fi ma japp fi ki japp fi ki japp fi bu ko defé ñu boole xalaat yi doxal loolu. Mhm. mais mën naa ne wéetu ma ci. ndeysaan wéetu ci benn yoon parce que ñu ma ci jàppale li ñu ci war a jàppee. Mhm. Mhm. macha allah mën nga ni wéetoo ci parce que waa Kër Cheikh Kër Ma El Hadj dina faal ñëpp am nañu yéene te am nañu pas-pas ànd ak yow ci bés bi nga xam ni euh, yaa ngi koy woote bës bi dafa mel ni am na ñoo xam ni ñoom nga ci am na ko xam ni moom nga ci delloo njukkan kooku kan la ak lu waral loolu. waaw kooku day mooy Mafal mi la tural sànq sànq ba léegi parce que tamit moom it lépp la ci. Mm-hmm. kon tey jii bu ñu demee ba koy sargal ci bés bi li ma benn waaye wax ni ma boo ma faal ngay sargal kenn du ne lu tax nga koy sargal. ndax lan ndax niñ mel ak moom. Mm-hmm. moom mën naa ni ñun ñun ñu ay xaritam. barke yonent parce que jàpp naa ne dina wax ak loo xamante ni ñun nga xamante ni fondoona fondoona ak ñoom du wax du wax ak ñoom ak ñoom noonu. Mm-hmm. barke muy ku koo xamante ku ku yaatu la barke alxuraan yàlla xam na ko parce que moom it daanaka mënuñu wax ci moom ba ba ba sori bu baax daal mënut bu baax. waaw baax na yàlla xam na ko kon nag dañoo jël moom ñi moom mooy sargalu bis bi mm-hmm. waaw te it bi ko sëriñ déggee suñu sëriñ def ci am kontaan parce que ñoom ñaar ak yàlla kon tey bi mu déggee loolu moom xool bu rafet la la la ci àndee mm-hmm. yàlla xam na ko mm-hmm. am na tamit hommage waaw ñu delloo njukkal am na tamit hommage muy Adja Ndeye moom suñu yaay daara la woon suñu yaay daara daanaka këram gi nga xamante ni moo nekk fii ci ci tali bi avant kër gi daara alxuraan moom moo nekkoon si biir kër gi. Hmm. ñu mbaaroon ko benn sàkket. waaw daanaka dañ faa jógee rek tukku ci ginnaaw. ba ba ci boo xoolee am na orange money bu ne foofu. muy hmm. dund. daf ni woon kenn du ko utiliser da daara lañ koy def ba ba ba ni jógee buggul ma mu ni assurance boo ko deful daara kenn du ko def daara kenn du ko kenn du ci ko jëriñoo yàlla xam ne ko barka alxuraan ba ni muy ba àdduna mm-hmm. muy koo xamante ku bëggoon tamit ku bëggoon tamit wàllum diine la mm-hmm. parce que bari na ci téere yu bari yoo xamante ni man maa ko doon jàngal su ma wàccee fii maa ngi ñëw foofu di ko ci laay biir Hmm. mu nekkoon jàmbaar joo xamante ni ku bëggoon alquran la ku bëggoon lu baax la hmm. muy Adja Ndeye Wade kon nag bés bi ñaar ñooñu ñu leen nee dañuy hommage kii sargal kii duñ la moo tax ñu def ko hmm. parce que ku ci nekk xam na ni ma mel ci ñoom ñaar ñooñu mm-hmm. muy alaaji Mafal Diop mii ak Adja Ndeye Wade parce que ku ci nekk am na relation yoo xamante ni am naa ko ak yow mm-hmm. kon boo ñu demee sargal kii hommage kii duñu ma lan moo tax ngay def loolu mm-hmm. parce que ku ko dina xam ne lii ma def loolu ma war a def la yàlla xam na ko di nuyu doomam soxna mam soxna moom it mi ngi ciy jàpp baax baax tamit mi ngi ciy jox ay xalaat yoo buñ jiitalee mam Ndoye Mhm. waaw di leen woowaat ci bis bu baax a baax a baax ndax seen bis la ñoom mhm. mhm. ay ca mu ngi noonu euh, mu doon lu am solo parce que nit ki di nga nekk ak moom jëflante ak moom jëflante bu am solo bu rafet macha allah euh, gis nga bis dina ñëw nga delloo ko njukkal bu ko fekkewul fexeel ba li nga xam ni yaa ngi ko ci amal ci bés bi mu am ci ci am ci wàll muy lan alquran bi nga xam ni bu ñu xëyee suba nga wàcceel ko kaamil yónnee ko ko lu mu ci doon ci moom yàlla dina def mu jot ko ci barki Seydina Muhammad ndax ña dem demuñu ñu ngi nii ni xippi seen i bët di ñu xool lépp lu ñuy def ñu ngi ciy teg bët te lenn rek lañu ñu ñoom muy lan di leen sànni ñaan di ñaan yàlla yàlla xale leen àjjana ci barke Seydina Muhammad ci taxawaayu bés bi euh, bu ñu xëyee bu ñu xëyee euh, kuréelu xasida moo fay am wala waaw bu ñu xëyee dañuy amal njàngum alxuraan. waaw waaw parce que bëgg nañ ci limu kaamil. Mhm. lim bi man naa mën naa ne commencé naa ko. commencé nga limu kaamil commencé gul naa limu kaamil bi amagul naa ñeenti mhm. maanaam bés bi mooy bés bu alxuraan la. Mhm. parce que ki ñuy wax cant maam Cheikh Ibrahima Fall kooku ñuy def maanaam kooku léppam alxuraan la woon. dinaa ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall. xam naa moom la ñuy tëjee. kon kon nag kon am nañ ci amagul nañ ci limu kaamil amagul nañ ci ñeenti kaamil bëgg nañ ci beneen bëgg nañ ci lim. fii ba bés bu ñu xamee ni lii bu ñu ko defee lim boobu ñu ci mottalee lii dina mottali bés bi parce que bés bi bu ñu xëyee dañu ci mhm. ci jour bés bu kilifa ko seetloo dañu amaat beneen kaamil boo xamante dañu koy tasat ci biir programme bi ci jàppaat ci bu ñu xoolee ñu xool naa nangami kaamil la ñu mhm. ñu def ko yiw boo xamante képp koo xamante ni ñëw ci bés bi suñu borom day defar seen biir parce que bésu alxuraan la waaw bésu alxuraan la mhm. képp ku ci teew fii salafil alquran la lay waatal ni képp ku ci teew sa hmm. borom dina faj sa aju ci barke alquran barke borom guddi guddi bi ñu koy waaw pour l'instant nii moom amagul nañu hmm. ci bés bi la jëm hmm. waaw te lim lañ ci soxla insha allah jàpp nañu ko ci am bu neexee borom bi waaw bu ñu paree ñu def ko ci ruuxul day wàdd képp koo xamante ne indi nga fa suñu indi nga fa aajo suñu borom fajal ko ci barke alquran parce que alquran lu mu mënul amul lu mu mënul amul ah, parce que parce que dañu jàng suratul isra ba ci benn aaya suñu borom mi naa wa yunazzilu mina alqurani ma huwa shifaa'un wa alxuraan li muy li day dindi stress. waaw waaw man stress man waaw stress man jàpp naa ne man du ma ko am parce que tamit nit nga ne ma la moo taxe doo mer. man li dina dinaa mer mais du bari boo meree doo ko xam parce que su ma meroon fii léegi may dugg toog fii fa ma fekk maa ngi alxuraan. Mhm. jàng ba sama xol sedd. lépp lu ma lépp lu ma jàppoon de defal xam naa ne alxuraan day dindi stress. Mhm. bépp aajo boo am da koy faj. Mhm. barke alxuraan man xam naa ci loolu parce que ni may fay man a a baax kon nag képp ku fa suñu borom dina la fay ci barke alxuraan. Mm-hmm. aajo boo fa indi suñu borom dina ko fayal ci barke alxuraan. Mm-hmm. waaw parce que bisu alxuraan la. Mm-hmm. la mu ngi noonu ca waxtaan wa kan moo koy teewee. waxtaan ba Serigne Saliou Serigne Saliou Thioune surtout Serigne Ibra Thioune Sambanaar Sambanaar Rakki Baye Thioune Rakki Baye Thioune te ku ne xam ne Serigne Ibra Thioune Sambanaar ni delloo kon nag waaw ca mboy mboy ga delloo nañ ca mboy mboy ga mhm. kon nag Serigne Saliou Thioune mooy année yi fi jaar première ba troisième bi nga xamante ne mën jëm te yàlla suñu borom may fekk ko tatal ko ci barka mhm. bu ko suñu borom bàyyee bañ fekk ko mooy waxtaanal nag ci mhm. bi ni ñuy àndeek lépp thème boobu la fi la fay indiwaat moom te dina ñëpp ku ciy dem muy tijaan beek parce que man sa sa sama bu wootee maanaam ñëppay ñëw parce que Mm-hmm. waaw kon nag kon muy tijaan xaadar laayeen ñeseen képp ku fa munti ñëw di nga waxtaan bi du concerné ñun murid yi kese dëgg la ku nekk di ci gis sa bopp mm-hmm. yàlla xam na ko kon nag moom dafa dafa boole boo tax ñu ñu nangu xam-xamam xam fi ko Cheikh Ibra teg moom it ñu jël ko jox ko guddi gi mu waxtaan guddi gi ndeysaan mm-hmm. moom mooy conférence bis bi mu doon lu am solo wax nga ko sànq rek euh, njàngaleem Cheikh Ibra ku nekk xam na ni amoon na bëgg-bëgg am pas-pas surtout ngëm-ngëm gi nga xam ne amoon na ko jëmale ko ci sëriñam bu tedd bi mu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul mu fonk ko ba yemalewu ko woon nag dara ci këruk àddina yemalewu ko woon nag dara ci këruk àddina kon boog tolluwaay la ndaw ñi war cee mën a sofu parce que amuñu lu dul ñoom le Serigne Cheikh doon wax rek waa Makka ñoo ñu gën nitu démb mais ñoo leen gën niti tey li am Sénégal amul fenn kon boog ndaw ñi tolluwaay la wareef la ñu delluwaat ci li nga xam ni moo di jàngale mag ñi wekk leen jox leen cër jox leen euh, wareef bi nga xam ni moo war ci ñoom suñu digganteeg ñoom suñu kilifa yi tabar fa kàlla macha allah ci njàng yi taar kàlla dafa mel ni am na ñu ma ci seen sama waa ji moom euh, dafa mel ni si sa jaay daa bàyyi ak ñeneen ak ñeneen ñan ak ñan. waaw jàng yi ren moom macha allah. Mhm. parce que ku xool avis bi xam ni am na changement ak yi fi yi fi jotoon a jaar. mooy yokkute gi. waaw mooy waaw mi ngi noonu mooy mhm. yokkute comme Cissé première édition ba ma fa fi may wax yow nii ñu ngi ci ànd ak moom yàlla xam na ko. <laughs> sama waay maa ngi lay nuyu ku ñàkk ñaan la. yàlla xam parce que tamit des fois des fois di nga nekk ci koñ. Uh-huh. fi nga ci koñ ba suñu borom defal la fi tawféex. baadu baadu nga gis succès rek fàtte say nit ci démb doxaloo mais moom doxewul noonu. Mm-hmm. mosu ñoo taxaw bañ kii ba pare wala avant mënu ma jox ma temps ma bi. ma mm-hmm. ko dama ko séddal fii ci ci ci télé bi. ci télé bi mosu mosul taxaw ni ma jox ma temps barke alxuraan kon nag loolu jàpp naa ne ku baax rek moo koy def. Mm-hmm. soxna Absa Ndiaye moom it édition bi passé ànd nañ ci ak moom mu neex ko ba mu neex ñu ngi ko bii dina fa la dëkk moom it jànkat bu mag la ku ñëpp xam moom it day taxaw bés bi moom it changement am na ci parce que moom it daaw nekku ci woon kon mooy waral ni yokkute am na ci bés bi mm-hmm. Abdoulaat Nabien Abdou Lahat Abdou Lahat Ndiaye na bien. Mhm, sama nit ki maa ngi lay mhm. siyaare mi ci programme bi. Mhm. Abdou Fall moom it dëkk fi. Abdou mu dëkk. Euh, Diourbel côté waaw Diourbel ñëwoon na ci cantu maam Bamba ñëwoon na ci. moom it maa koy nuyu Bamba ba ma ngi ko parce que tamit boo demee ba Abdou Fall ci programme bi moom lépp ci moom lépp moom la. parce que moo boole ak moom. ndeysaan Bamba koy nuyu bu baax a baax a baax. suñu daayira Jazbul Xulub bi nga xamante ne ñoom dañuy taxaw bës bi ñoom chaque année ñu dañ ko and ak ñoom ñu leen di nuyu waat bu baax di leen ci woowaat mi mi ngi noonu suma jumul dal suma jumul dal juumul daal ñoy mhm. ñooñ ñooy ñoy ñooy ñooy taxawee ñooy taxawee bi mhm. wa muy abdoulat mhm. di Cissé ndjay di mbay mukarramo Serigne Saliou Bamsas ak soxna soxna Absa Ndiaye waaw ak Abdou Fall ñooñu ñoy taxawee bës bi te képp ku ci ñew di nga xam bës bi nak wuté nak bu daw ba Mm-hmm. parce que ñu ngi ci wàcc bi yëpp côté bépp côté boo xamante ni tey jii bi ñu ko defee mu dox ak ànd ci ñu ci war a àndal ak xalaat yëpp mm-hmm. ñu ci wàcc bu baax a baax baax a baax ñu ngi ci bu baax mm-hmm. waaw bés bi bu baax yéen di leen ah, naa ko ma faa bi nee naa ko ndàgg amuñu fayam parce que li muy def ne rek yombul may teg ba saag moom moo téléphone ni ma Rachid dina fa ñëw ngoon wala dina àndalaay say boo ndikki ngeen def nii ak nii ak naa ne ku du ko ñaanal sama borom fépp fi nga xamante ni ñu ngi dégg télé ñu dégg fa télé bi fu ko raw ci barke alxuraan te gëm naa ne loolu dina am parce que ku yàlla fay xolam rek li mu bëgg ci télé bi dina ko am amiin waaw ngi noonu bés bi daal ñooñu ñoo koy taxawu waaw ay ci kon mu ngi noonu am na solo bu baax a baax a baax mbokk yi doon leen fàttali ni yéen a ngi Sexla Sen 24 TV ci ëttu mag ñi tey ñu ngi dalal Fall Fall Al Quran mu amal programme bu mag la premier juillet fi nga xam ne moo di ci diwaanu Kër Cheikh cant maam Cheikh Ibrahima Fall Issa Dieye Fatim Penda moom la fas yéene delloo njukkal ci bés ba la tey Fall euh, daanaka waxtu wi li ñu jagleeloon ci waxtu mu ngi ci jëm ci jeex mais daanaka ñu tënk lancer message jëmale ko ci actualité jamono fi mu toll lan la ñu a mën a jànge ci mag ñi rawatina ki nga xam ni moom lañu ñu war a tàntal ci bés ba muy maam Cheikh Ibrahima Fall xale ba am li nga xam ni moo di njariñu sëriñ si wallaay bala maa dugg foofu damay woo xalifa kër maam El Hadji Ahmad Baro waaw muy sëriñ Mounir Ndiéguène waaw mhm. ah, moom daanaka ay doomam am nañu wóllare ma ma man ak ñoom ndeysaan ci mel ni Serigne Modou Ndiéguène Ousmane Ndiéguène daanaka ñoo jàngandoo fii ci daara Abdou Khadim bi Abdou Khadim Ngom moo ñu jàng alxuraan mhm. moo di nit ku baax la barke yonent parce que ci commencement ba ni may waxee yow nii mu ngi ci joxe ay xalaat rafet mm-hmm. parce que moom daanaka moom bugg ñaari at yëpp mu leen ko doon darajaalee mm-hmm. mais ren daf ni ma defal nii ñu jël kenn ci toftal ko ci kër gi ñëpp ñu topp ci topp ci ginnaaw bi ñu ko defee it maanaam képp koo gis tamit da xam ne lii lu rafet la mm-hmm. kon nag ñu ngi ci waat xalifa bi bu baax a baax a baax di ñu ci waat xalifa bu baax daanaka ñoom lañ koy fal tey jii man boole parce que ku ne xam ne Serigne Touba ni mu waxoon seen maam ba Cheikh Ibrahima ñëwoon ci seen maam. ni ko ba tëdd ni ko. ni ko jullee ma jullee ma alaaj ma borom ni ko déggoo mu ngi ko Serigne Touba ko ko ko waaw waaw jullee ma rek. jullee ma rek kon tey jii kon jàpp naa ni. muy mhm. def seen maam Cheikh Ibrahima wala ñu cee boole kër maam alaaj waaw kon nag Serigne Mouride ñu ngi ko cee waat bu baax a baax xalifa bi. Mhm. ñu ngi ko tuddee rek daanaka tudd nañu kër gi yëpp. Mhm. daanaka mooy bopp bi. waaw ndaw yi nag ndaw yi nag li ma leen di wax mooy ñu def ni man parce que li ma nekk nii man ci gis sama bopp barki yonent bi tay ji monona monona wote lenen suma wote su ma wootee tamit su ma leen ñun ñëpp dañuy ñëw mhm. parce que sikna ak ñom ak jam jàmm ak salam ko tay ji suma len leen ci ci ci Cheikh ibrahim Fall danaka dañ ci sawar mhm. ma dem na ba nga xamante dañ ni ma yow li moomatu ko suñu yëf la waaw danaka lu ci bëri dama ma ci daan sonnee tu mako ci waaw damay tok ñoom ñoo ma defal ni defal ni defal ni defal la tay dama ci gis ñariñ mhm. ko dama len di wax ni ci lima nekk ni lolay deug lepp ko mo ci mëna fekk ci nga fekk ci mo ci ta xamni li moy deug deug la waaw man man ci gis sama bop parce que ñun amuñu lu Cheikh ibrahim ndeysaan man day mën naa ne Cheikh Ibra defar na ma mhm. barke alxuraan Cheikh Ibra defar na ma parce que tey jii man jàpp naa ni yu bëri dem yi ma daan def mhm. parce que tamit ay ndaw lañ ay ndaw lañ waaw ndaw lañ ndaw ndaw ak ndaw ak ak dëng moo moo moo mhm. kiiwul safa waaw ñu ñoo ñoo ànd te tey jii daanaka bi sama borom wala ba téye sama xel ba ma jébbalu ci Chérif Assane daanaka lu bëree bëree bëri bëri dafa denc man tey jii su ma naree def dara sax nga xaar ko xaar xaar ko moom barke alxuraan du ma ko def parce que bëgguma ñu koy woo ko man maa def li maa def li def na parce que loolu gàcce la ci man mhm. waaw kon nag di leen ñaaxaat bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. ñu topp yoon bi parce que lii mooy dëgg mhm. muy bu tijaan beeg ba murid beeg laayeen beeg xaadar beeg ñu seen beeg Baye Fall beeg murid beeg lépp dañuy hmm. topp mag ñi parce que topp mag ñi daal parce que bu bu bu ci ëllëgee ñoom ngay topp kon nag nga topp leen ci ndaw hmm, moo gën hmm, moo gën ah, ci taxaw parce que bu ñu ko defee dañu ci gis seen bopp barke alxuraan ndeysaan ndaw du nuyu sama benn waaye moom du tudd turam dañu man dama laa ñëwee waaye tax mun ma ñoo yow kañ ko wacc alquran man nga man bi may wàcc alxuraan 2011 la mo 2011 fekk na moko alquran alxuraan bay jàng xam-xam hmm. mais kenn mosuma wax diw diw alquran c'est ça te mom borom xam-xam mag la mokkal na alxuraan dama hmm. ko nag lii bul ko xeeb lepp loo ko mën ko téye ko maa ba bu déggee déggee li ma wax ni la xam ni mom lay waxal hmm. jërum ma tudd turam waaw ndaysane mu ngi non amna solo bu baakha baakha baax mu lancer message bu am solo jëmele ko ci ndaw ñe man le serigne bay jaxate waxon Cheikh Ahmad bambalane di wax Euh, nee na ko Ahmadu mu ni ko Mbàkke mu ni ko doxal taway nit balaa weesuy temam xaw a dee xëy jiitu sab te dee woo wett li jafe na tubaab bi feelu ko ni ko qui craint d'être aperçu n'emprunte jamais le chemin de la gloire Alaaji bu Jóob nii gis nga tarixa bu ñu koy misaal dafa mel ni garabu màngo bu ma ci daggee doom lekk mboojeen ba dagg doom lekk ku ni maa la dàqale dangaa saalit ndax garab ji benn la fan lañ jëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bokk yoon la tolluwaay la nit ñi ci boppam xam bu baax suñu kilifa yi wekk bu baax suñu kilifa yi te bu jamono méttee dëkk bi tàkk ñu ne na kilifa yi génn mhm. bu kilifa yi génnee am ñoo xam ni ñu ngi ci gannaaw écran yi di leen jàll baat di leen sànni loo xam ni tey jii du neex ci ñoom bu ñu demee ba ci biir doo xam sax lan ngay mujjee def ndaw ñi nañu xamaat seen bopp xam ki ñu doon ñi nga xam ni ñoo fi toogal Seydina Muhammad ñu jox leen cër bi nga xam ni moo war ci ñoom muy Touba muy Laayeen muy Njaasaan muy Tiwaawan comme ci mën ci doon ndax ñoo fi représenté Seydina Muhammad te dañoo am loo xam ni ñu bari ci àdduna amuñu ko kon bokk gis nga nit ki loo am te xamoo ko ñàkk daw di ko wëri sax moo ko gën nañu xam li nga xam ni moom lañu am euh, bu ko defee dama lay delloo kàddu gi nga cant ak ngërëm boo jëmale ko ci ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi lay taxawu ci bës bi ñëpp ñëpp nga remercier leen bu ko defee bu ñu ñëwee ñu tëj. waaw laay léegi kon damay woowaat Serigne Mbacke Fall. <laughs> Serigne Mbacke Fall mu Serigne Mourou Moussa Fall daanaka moom. Mm-hmm. mooy mooy mooy magu dëkk bi. Mm-hmm. kon nag. te kër Cheikh gi nga xamante ni fi la defee cant gi mm-hmm. daanaka léppam ci loxoom la ñu ko teg ndeysaan mu jëlaat ko taxal ko ci loxo Baye Cheikh Diop mm-hmm. di ko ñaanal sama borom guddal fanam wéral ay cëram mm-hmm. may ko tan bu baax a baax moom suñu suñu suñu maam la maam la ci ñun Baye Cheikh ñu ngi ni bu baax daanaka moom mooy ko lepp koñ bi mom la mm-hmm. tey ji demone nañ ci mom bam ñaaxat ñu ci bés bi parce que tamit yoon la ngay def dara ci koñ bi dem ci mom parce que mo leen dem koñ bi mm-hmm. ñu ngi ko ci waat bu baax di ci waat Serigne Mbacke Fall Serigne Cheikh Rokhaya mm-hmm. waaw moy Serigne Cheikh Ndigal Fall ñu ko ci waat baax baax baax parce que tamit li ñom lañ koy defal ñom lañ koy defal parce que seen mam lañ koy defal kon nag kon ñom ñom lañ koy defal di ci woowaat ñepp di ci woowaat ñepp baax ba parce que banque anage ku dégg rek xamni woon ñi parce que tamit surtout suñu mbokk bop bopp parce que xewle gesu gis mbokk bopp dara ah dafa neex de sa mbokki de rek gestu gis len dara dàq ko kon ñu ci wat keur Cheikh gi parce que man keur Cheikh la am mhm. sama lepp keur Cheikh la ko defé bañ bañ ne ko ci ba alcorane ji jang sa keur Cheikh la ko jangé kon nak lepp lepp sama lepp keur Cheikh la mhm. ma ngi leen ci wat baax baax baax baax baax baax bu bayiwuma kenn autorité ñepp ma mhm. ngi leen ci wat parce que bis dafa metti kon nak ñom rek ñola ma taxaw ba sa bes jak ma ngi leen ci wat ñom ñepp da xamni kepp ku ci ñew indi fa aajo sama borom dina la ko fajal ci barke alquran amiin barke borom guddi ki nga xamante ne moo leen defal guddi gi amiin waaw ñu ngi ciy woowaat ñëpp bàyyiwuñu kenn bu ñu limee dañuy juum mhm. jërëjëf kon di ko kontaane di ko jaajëfal bu baax a baax a ah, ci toogaay wi nga xam ni toog nañ ci te yaakaar naa ni waxtaan wi ñu ci waxtaan dina amal njariñ ñi nga xam ni ñoo toog di seetaan la Sen 24 TV waaye di jaajëfal ki nga xam ni moo di sama caméraman Rachid Kama ma ànd ak moom tey mu réaliser ñu li nga xam ni moo di émission bu neex bi tabarfakalla ah muy émission bu am solo bi nga xam ni moo di ëttu mag ñi Euh, ñu ànd ceeg euh, waa Sen 24 TV ñëpp leen wax ni nekk euh, képp koo xam ni cant cantkat nga wala si karkat kum mën a doon ubbil nañ leen suñuy porte ngeen ñëw ñu jàppale leen ànd ak yéen ci programme yi nga xam ni la Sen 24 TV mu ngi koy ànd ak yéen tabaar fakal la macha allah ah bu ko defee da ngeen di jël sama numéro incha allah képp koo xam ne am nga programme religieux man rek ci ci lu jëm ci religieux ci lay dox ci lu jëm ci diine ci lay dox bu fekkee leneen la am na ay ñoom Bamba Galsen ak ñee nga dem ci ñoom ah 77 922 27 27 77 922 27 27 ñu ànd ci programme yi ñu ànd ci àndin bu rafet tabaarkalla macha allah waaye di kontaane ki nga xam ni moo di monsieur le PDG NG Njegen Mam As Sapatek Demba Yoro Ëmër ak Ñay Maca Saloum Jool Fatim Tooba Astama ca Beleer Médoune Borom Kasaas di la ñaanal yàlla bébét xalaat yi nga xam ni am nga ko jëmale ko ci Sen 24 TV wala groupe NJ Family yàlla mottali ko ci barke Seydina Muhammad ndax jàpp naa ni bu ñu amoon fukk yu mel ni yow ci diwaanu Thiès yaakaar naa ni euh, chômage bi dina wàññeeku bu baax a baax a baax te yaa ngi dooleel diine ji yaa ngi dooleel li nga xam ni moo di islaam machallah di la kontaane di la jaajëfal bu baax a baax a baax ak toute l'équipe de la scène 24 TV ay ca Seymidou nag Dias moo nekkoon ci kaddu gi satub jéeri ngoo dema lobe samba bi ku li ma ca sigidaat ma faliku mandaama tëx ba balaa dégg ki balat ñar ni tuy waaye di kontaane sama yaay ja ki nga xam ne moo di na koy seeni mbay alaaji bekkaay mbay fàttewuma leen maa leen di chiare di leen kontaane kon ba beneen yoon ci beneen émission ci ëttu diine ji ngeen go ceeg ki nga xam ni moo di